am li taa'ifatil muridiyya yàlla na ko fi yàlla yàgg yàlla na sëñ Tuubaa def ci moom coobare loo xam ne mësu koo def ci nit yàlla na bokk ci ñuy mujj ci àdduna li mu naanal sëriñ Tuubaa yëpp yàlla na ko àggale ci coobareem sëriñ Muxtaar Mbakke li mu naanal sëriñ Tuubaa yëpp yàlla na ko àggaleel ci boppam ñaanal ci boppam nu ànd kooku moom muy naal di naal di naal di naal rek te lu mu naal àggale ko sëriñ Muxtaar Mbakke nu ànd kooku moom sëriñ Muxtaar Mbakke yalla nu yàlla rus ci moom barke Seexuna Seexul Xadiim Xaadimu Rasuulillaahi si Siiru Muxtaar Mbàkke ni koy ñaane rek yàlla na fi yàgg lool te mu ànd ak wér fekke ak tal aku tal oh, barke Seexuna Seexul ñu ngi ñaanal sëñ Mamour Mbacke Pakala suñu sëriñ yàlla na yàlla yokk leeram daal ci barkeem di ñaanal soxna Fadja bintu Xaadimu Rasuulillaahi yàlla na yàlla yokk leeram daal ci barkeem ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa na ko fi yàlla yàggal barki Seexuna Cheikh Ahmadul Xadim di ñaanal sëñ Basiiru moom sëñ Abdul Xaadir Mbàkke yàlla na yàgg jiite di ko sëñ si Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke di def loo yàlla da ko am ci ngeen bëgg a àgg yéen a ko xam yàlla na sëñ Tuubaa àggal leen fa barkeb jaari batul maraakib kaajilin kaajilin dara jërëjëfe sëriñ Tuubaa asfe sëriñ Tuubaa cey sëriñ Tuubaa borom Tuubaa borom